Serigne Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa di ñaan sun borom yàggal ko fi lool doole ak wéram noo ngi nuyu bokki marché occas yi nga xam ne <clears throat> ñoom lañuy ñu jóg seet si leen tey ci kàddu soxna maam Anta mi nga xam ne mooy mag yi sëriñ Abdoulaye Dia mu leen ji nuyu ci turu Serigne Abdoulaye Dia président directeur général bu Sénégal. di fab nuyoo boobu di ko teg ci loxol délégué de marché bi di sëriñ siini jañ waaye secrétaire général bu ACIS di Serigne Fallou Xuma waaye di ko teg ci loxol itam Serigne Alla Silla mi nga xam ne moo fi teewal commune bu Touba ci maire bi ci Serigne Abdou Lahad Ka ne ci bopp bi soxna Maamante nee na bi muy ñëw mi nga ànd ak soxna Xadi Silla mi nga xam ne. moo dend ak yéen te bokk ci marché Ocass waaye ànd ak professeur Omar Fall ànd ak sëriñ As Jaxate ak Serigne Bolle Gueye ak sëriñ Mame Balla Gueye Serigne Daara nee na di leen wax ne Serigne Ablaye nee na kero bi mu déggee dogal bi wàcc ci ay bokki jullitam wàcc ci ay bokki taalibeem la daldi woon fanaanoo yéene joo xam ne yéene ju sell la façon ko yéene jëme si ci yéen waaye ginnaaw bi mu xam ne mbir bu amee danga naan tekk déglu say kilifa waaye bi mu dégloo dégg kàddu sëriñ Mouhamadul Mountakha ak délégation bi mu fi yónni ak som bi mu leen jox nee na xelam def na yar ci roy kilifaam te nit lum sañadi sañadi suñ borom dogal na ci moom moo war a roy kilifaam nee na gan kilifaam lay roy moo yaakaari tayam ak ëllëg di maam Cheikh kero bi nga xam ne peste bi ñëw na ci réew mi sëriñ Touba daf ko déglu na ko seex loo xalaat ci njaboot gi nee na ci la commandé woon batob ceeb ci 4000 tonnes wax ne réewum Sénégal ñi fiy dund Serigne Touba leen moom te buñ xiifee maa leen war a dundal nee na loolee nag la bokk la raya woon ci borom gaawaan wax ne njabootu Serigne Touba doomi Sénégal di jullit fu am nattu dale ci moom sëñ Ablaye nee na jàpp naa ne natt boobee mën mii la yàlla jox ma war koo saafara keroog la fanaanoon ne su ma mënoon a tabaxaat marché bi topp ña fa lakkale ma recensé leen ku nekk ma xam la mu ñàkk danaa ko doublé joxaat leen ko ndax xam naa ne lii nuy liggéey bu noppee njariñul lislaam rek lay doon njariñu Sénégal lay doon waaye nee na loolu moo tax nag tekk ji mu defoon du woon tekki dara lu weesu yéen a juree rek la ak ju sell moo tax mu yëkkati somb toll ci ñaar fukki million def ko ab set teg ko ci loxol soxna maamante Anta Ja mii di magam ñu bokk lépp na ko soo demee joxal ma ko waa marché bi ne leen su ma mënoon topp cantine par cantine danaa ko jël kenn ku ne la nga yàqule ma seet nam toll ma jox la ko ndax wóor na ma ne ñi la ñuy liggéey njariñu réewum Sénégal rek lay doon waaye njëriñul lislaam lay doon waaye rawatina njëriñul Tuubaa rek lay doon te man bu ma soñoon benn jullit du loru tama man ca dara loolu nag moo tax nee na lii mu leen jox bu sañoon sax nam ko bëggee woon du doon lu ñuy wane ak lu ñuy publicité ndax jëf la ju sell joo xam ne ju ànd ak yéene la nee na mi ngi koy tàmbalee ak yéen di massawu mbooleem ñi nga xam ne ñoo ci lakkale rawatina ñi ci gën a dool néew doole te moo di marchand ambulant yi di leen xamal ne ab jullit bu yàlla wàccee ci moom ab nattu daa war a sant yàlla ndax nattub jullit day yokk ay maqaama baa muy sippi ñaawteef bisub xiyaama loolu la waxoon maam Cheikh te ku ne xam ne ne ku fi yàlla jariñ ci àdduna teg ne la am nattu nga muñ nattu ba mu soog laa mën a jariñ boo ko tàmbalee ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba muy génn màkkatal mukarrama noonu ya defuñu ko woon dara tooñu leen woon waaye am nattu rek la ci yàlla boo ko tàmbalee ci suñu yaakaar seexuna ahmadul xadim bi ñu koy génne réewum senegal jote wuta nag moom loolu ca boobay lay wax naan xusóor yi xalaat wal ahdu an yi tafarraxat samay kër tas na samay daara tisaaroo nañ lan moo ma ko yóbbe ngir tagg gi may tagg rasulullah yi am natt la woon waaye kere bi ñuy génne maam Cheikh di ko yóbbu sigo it am natt rek la yàlla tegoon ci moom waaye natt yëpp gis nañ ne ba mu àndee ak muñ gu rafet suñ borom wutal na ca loo xamante ni bii ku ne xam ne ne nattu ba la ba ko borom muñee yàlla faye na ko li mu wax ne inna allaha maa saabirina yàlla nee na maag ñi muñ ñooy ànd te ko ànd ak yàlla sam xel war a dal kon sëñ Ablaye nee na ginnaaw bu leen santee gërëm leen massawu leen ci coono bi nee na lii mi ngi koy teg seen loxo tey ñaan yàlla nag yàlla na ko yàlla barkeel ba kenn ku ci nekk la nga cay dugg ci sa loxo mu fulal la la nga amoon ba nga fàtte natt bi nga xam ne dal na la ñi ngi sant ñëpp lu manqué ci kàddu gi man la waaye lañ ma ko waxoon jote na noonu ñoo ngi leen di sant di leen gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim laa hawla wala quwwata illa billahi aliyil azim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen mbokki commerçant yi marché Ocass yëpp ñoo ngi leen di nuyu ci turu Serigne Sini Dieng mi nga xamante ni mooy délégué marché bi ak mboolem su mag ñi nga xamante ni ñoo ngànk marché bi ndax bu ñu ci limee sëriñ Cheikh Mara Sylla ak sëriñ Daam Jaxate ak sëriñ Aliou Sylla ak sëriñ Cheikh Sylla ak sëriñ As Jaxate mën naa ne mën naa yóbbaale ji ak sëriñ Moussa yi ndax comme toll mooy tam nañu kor nañu fi ngir yëpp di jaar ci yoon ñooy suñuy mag jiital ñu ñu yor liggéey bi di ko doxal te lépp lu ñu def ñu waxtaan ceeg ñoom kon bu ñu leen dalagee bu ñu leen dalalee fii ci marché Ocass di ñaanal sëriñ Mountakha moom mi nga xamante ni mooy kilifa dëkk bi ñaanal suñu borom yàggal ko fi ba li mu yéenee liggéey sëriñ Touba mu defee ko nu mu ko bëggee moom day wax di yàlla mooy sunu day mooy sunu bàyyi dalal na sunu xel bi yëf amee ci moom lañu dëkk ci moom lañu mujj wax di yàlla ba mu demee bañ demee ci moom dañoo xamal ne lépp lu dal ci marché bi wax ñu lam ca wax lépp sunu xel ba yëpp lu muy dis dis daan lay woyof ci ñun ginnaaw bi mu yëkkatiwaat si Amadou Basir yónni ko fii ci ñun gën a dalal sunu xel yëkkati ndimbalam boole ko de kon ñun bu dee taalibe Serigne Touba képp koo xam da ngaa yaakaar Serigne Touba loola ci moom kon noonu la jëm yi doon def di roy Serigne Mountakha wane ni kat wane na aw yoon ndax kenn ku ne lu bu ko loolu la tari Serigne Touba yëpp jàpp ba tey jii Serigne Ablaye Dia yónnee fi moom itam ak Serigne Ndiagne Fall ngir xam ni kat lii dal Touba ñoom la dal ndax Touba képp lu dal ci ni kat li fi yàqu la yàqul moo tax ñu am xolu biir ngir ànd ak ñun ci tiis wi ngir feeñal seen yéene ci yëf yi ngir mu woyof ñun kon nag waa marché Ocass yëpp muy ndaw di góor jigéen muy ñi nga xam ne ñooy sinistré lakkale ak ñi nga xamante ni mooy marché Ambalamaay ñun ñëpp marché leen ak cant ak nga xam ne moo tax ñu jëf ko fu mu yëgul di jaajëfal mboolem marché Ocass mboolem commerçant yi nga xam ne ñoo nekk ci marché bi te lii yëpp ñu jàpp ko àndandoo benn nekk euh, boole suñu benn boole ñëpp ñu àndandoo ñu teewe ko lii amati waaye daal ñoo ngi sant waa marché bi yëpp ndax lii ba mu dalee ba léegi kenn ku ne bàyyi nga say ànd ko ak waa ñi nga xam ne ñoom la dal seen kaw ndax ab jullit loolu mu ànd ko na di ko indi sant bu baax ki nga xamante ni moom la yónni muy soxna maa anta jëm yi mu ànd ak euh, xaritam di soxna xadisi la mu nekk ci a baax di rafet lu baax it sëriñ Njëñ Fall moom itam nga xam ne yónni na fi mooy doom rakkam mooy doom soxna Ami Fall mu ànd ak soxna Fat Fall mu ànd ak Serigne Cheikh Sylla bi nga xam ne mooy doom sunu maga nekk ci commune rural bi ànd ak Serigne As Jaxate kon daana mel li ñëw ci marché bi ñoom ñoom ci wax mën a ñoo bokk lépp ñoom ñooy ñoom ñoom kon ñoom daanaka li ñëwal seen bopp man bu la neexoon mën nañoo toog fan toog wax la ñuy wax lépp te ñoom duñu jël kàddu ndax ñu def loolu ñun lañ ko defal amuñu ñaar duñu kenn ñun ñëpp ñoo bokk luñu luñu bëgg ñoo bokk luñu bañ kon nag ñoo ngi leen di sant ci baax ak teewaay bi ngir wane ni kat lii dañ ko def ngir ànd jàppalante ba lépp mu woyof loolu nag ñoom sant yàlla bu baax baax di ñaanal sëriñ Mountakha suñu borom yàggal ko fi ba yéene ji am ci liggéeyal def ko wax yàlla sunu xel dal na sunu njortu gën naa rafet bu baax a baax ndax moom bu doonee sunu kilifa jiitu ci lépp nekk sunu kanam nekk sunu ginnaaw lépp lu xewle mu yëg ñu xam ni kat yëg gi mu yëg ni rek loolu dafa doon sëkk kon li ñu def mooy li ñu ko deseen mooy ñaanal ko si eh, li muy yéene liggéey sëriñ Touba mu defee ko mu defee ko na ko bëggee am daan xol bu sedd ak xel mu daal bu baax a baax te xam ne lii ak yokkute rek lay doon ci ñun kon daal sant mu tawee sant wax yàlla ñi fi teew ñëpp ñoo leen ko bu ñu mu nga xam ne ñoo fi teew di ànd ak ñun ci li nga xam ne mooy liggéey bi nga xam ne ñoo ngi liggéey ci marché bi ngir àndandoo ñëpp nekk benn nekk fas yéene liggéeyal Serigne di leen ñaanal ci barkeb Serigne Touba moom mi nga xam ne moo fay mu fay sama xol sedd na suñu yaakaar gën a dolli ko baax a baax di sant maire moom itam moom itam a jiitu yëf yi moo ko a ubbi dafa nekk ay xat-xat tey jii Serigne dafa nekk di liggéey lu fële ci rawdu rayaahin moom itam mu yor liggéey boobu moo tax mënut a mënut tax yëkkati mënut tax a jël yëkkati kàddu tey waaye kon moo tax ñu nekkal ko fi yor kàddoom nekkal ko fi di ko doxal li nga xam ne moom moom la xam ne moom ab ab sant moo tax teewul jëwul kàddu waaye wax na ma ne sama kàddu mooy sa kàddu boo yëkkatee sama kàddu da mel ni yóbbaale nga ma kon nag moom itam ñoo ngi koy sant bu baax di ko gërëm ci liggéey bi nga xam ne ñoo ngi ko ànd fii ci marché bi di ñaan si barke sëriñ Touba suñu borom boole ñoom dimbalam ba lii bañ a defee am barke Sëriñ Tuubaa ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu